mbooleem région yi nekk ci senegal ñi ngi fa fenn fu ci ne am ku fa teewal sëriñ bi di ànd ak ndongo yi ci jàng ak yar ak euh, yëngu ci mbindum sëriñ bi mooy xasaay bi comme ni ko sëriñ bi diglee woon loolu nag ci njiital sëriñ Fallou buso jiite fédération bi nga xam ne ñi ko seq mooy Dakar te Serigne Malick Diop jiite ko muy daayira bu yaatu boo xam ne fa la ñuy daje at mu jotit li nga xam ne moo war ci liggéey bi ñu fiy daje di ci ànd di liggéey sëriñ bi bu dee fii ci Touba it Omar Fall jiite ko waaye mu am tamit daayira nuuru daare ni mu boole mbooleem daayira séeréer si tukaar jàkkeyal ak yeneen dëkk yi ko wër ku ñuy wax Saliou fay ak Cheikh fay jiite leen beneen bi mooy daayira Tiwaawan Sëriñ Taala sàmbu jiite ko ak daayira SIPS Muxaddamatul Xidma Xaadim Jaañ jiite ko daayira Njaareem Sëñ alfa Jaw jiite ko bu dee daayira Thiès ñoom Jili Mbeng ak Jili Sow ñoom ñoo ko Jili Ka ñoo ko jiite bu dee Kaolack sëñ Cheikh Saaw jiite ko mbooloo moomu yépp nag di mbooloo moo xam ne dañoo nosu ànd ak sëriñ bi di liggéeyal sëriñ Touba mu am tamit beneen parti boo xam ne mooy bitim réew ku ñuy wax Ismaïla euh, Diallo moo ko jiite ñoom it ñuy ànd liggéey bi saa su ne ñu ciy déggoo at mu jotit su bis bi tollee fii dañ daan daje xool li ñu amas néew jébbale ko xeeb ko lool nag ndax sëriñ bi wax dëgg fa yàlla am ku ànd ak moom ci liggéey sëriñ bi lépp loo indi dala koy fulal ndax ni mu ko waxee woon rek te sëñ Saliou daan ko wax mooy kuñ ànd ak bëgg laa jëriñ moo tax waaye du bëgg laa jëriñoo loolu nag ñu yëg ko ci sëriñ bi bu baax a baax a baax kon sëriñ bi daal Euh, mbooloo mi muy taawuna ala xidmati cheikhul xadim ñoo dajale seeni addiya daal di la koy jébbal ci lii nga xam ne mooy liggéey bi ñuy def muy màggal gi kon ñu ngi lay ñaanal tamit nga yàgg fi loolu te wér di ñaan suñ borom kàttanal la ba yàgg la fee fekk ay ati at nga yàgg ñoo jiite comme asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. màggalu Tuubaa gi noonu yi ngeen koy defee màggalu Cheikh Abdoul Khadir noonu yi ngeen koy defee kon noppaluwu leen ci wenn waxtu dañ leen ci ñeewante sax waaye ki ñuy jëfal muy sëriñ bi yàlla nañu ko nangul nangul leen jëf ji te jox leen kàttan gu ngeen ko mën a jëfe waaye nag na ci seenum xel dal bu baax te xam ne Sëriñ Tuubaa fàggu na lépp doolu lay rafet njort ak dolli yaakaar te xam ne liñ mënta ñàkk rek mooy Sëñ Tuubaa fàggal nañu ko li ci des nag xew-xewi jamono ak i nattu ak ñi wére di ñëpp Sëñ Malick jot jotli na ko lépp ñi ci am ay wére di ndeysaan ñi ngi leen di fasaale ci bis bi yàlla delloosiwaat seen wér-gu-yaram dolli seen kattan ak seen xéewal ba li ngeen yéene jëf ci kër Sëriñ Abdul muy seen bunt ci Sëriñ Tuubaa suñ boroom gàttandu leen ci ba ni ngeen ko bëggee ngeen mën ko noonu kon nag lii ngeen dajale am naa ci lu ma téye li ci desit waa daayira bi jox naa leen ndigal ngeen jënd ci yenn bagage yi nga xam ne mënu leen koo ñàkk comme ni ngeen ko defe woon daaw wéyelewaat na ndigal loolu jërë ngeen jëf nañu ko teewaat na gën a déwén ak jàmm te ku fiy dellu si rek nga fekke ko te tal ko te man ko jërë ngeen jëf laa kon fu waay toll na tàllal ñaan tam